Président. Oui, bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. kira maka sa allô oui je sais ce que je fais. Hein. Si vous tous vous me laissez, moi je vais, je vais continuer à gérer. Il n'y a pas de problème. Tous les pays qui sont laissez-moi, il n'y a pas de problème. si vous voulez, on va vous apporter même vos, vos, bagages. Il n'y a pas de problème. Libé don dundé, pas am sikim. dundé am mhm. Je parle bambara. Damane, mawa mouler, yen, li ngeen bugg ñun du def boobu du yéen yow wañaar loxo bii ñun ñoo toog bu gis normal ñu dem gisu boobu naa faraxa yaay oh, ina sénégal gina dre xadamoro fo ana à tous les pays ont quitté le sénégal aussi <laughs> ils vont ils chercher karité et goé <laughs> nous les attendons à pied ferme les tchoubou ils vont venir chercher les tchoubou il y a pas de problème traxa dugoro fara xara xara

parce que bu fekkee ne ku def dara yéen ñëpp ngeen def boobu am na ñu def bu gën a weng boobu defu leen boobu hane mm-hmm. frère ha tra hana sira hana rek ñoo def sanction boobu way ne fro ñaa militaire hana dumbiya ana harata hare na bara hare sénégal ay nawlo mm-hmm. sénégal ay nawlo wala ma mali ne léegi ne mali mm-hmm. ñëpp dëkk yëpp ñu nekk ak mali ñu génn jëlal leen suñu jabar yi ah. mhm. tous les maliens ñu nekk di sëy Sénégal ñu ñu font rentrer di Sénégalais yi takk jabar fii ñu ñibbi ñu bàyyi seen jabar fii parce que fayu dóor fayu la ana fi xa droon ana fana xale xari xëy na xanaa bu cuub génn te fii dem Sénégal ya ah. ak ko gobe seddaay mu ngi ñëw yéen wax na bu jeex na dina fara xatri ne maa ne naa kila Carité, karité na Carité? Ah. sénégalais karité ni fana hak sénégalais tchoubo hmm. oh. d'accord vous les sénégalais vos président a dit qu'il vont <laughs> qu'on laisse le pouvoir pour causer les élections hmm. vous allez sortir demain, demain. tous les sénégalais vont sortir il n'y a pas plus de tchoubo hmm. il n'y a pas de karité aïssata bakhayo andré oh, hanana bakhayo il n'a pas de Sidiki. Sidiki va pas pouvoir vous les Sénégalais jouer. Et vous allez sortir tous les Sénégalais ici, on a pris il On a mis un traane bana da sénégalais yalla woro sénégalais waaw brawne sénégalais baba ko ni fara ta tro ko ni tubulu waaw ma fatu traawara on ni ana dara hayde sara traawara la fara la ma dikena du tro dum yana sa te mun na ala fara hada dum ya ko troisième mandat de hada tour tourner ko d'état ya fara ni ala ma ko so woro ana fara bala dere na sénégalais no furu wo xane afrique ni nabi jaara tour na fara xane man saray oui masara ni xali masara ni xali ñaxali ñaxali e ñaxali ya xala na sénégalais no xoro tro xale bana bana ana fara fay Afrique, Sénégalais, France, la France, derrière l'Afrique. Pourquoi c'est Il est dans le. Il a ah. Il le ah. Ah. il Il le Il a eh, on va changer même le hymne national de Mali maintenant. Mm. On va plus chanter ça en français, on va chanter ça en bambra. Drogolo, drogolo. Mm. Mm. Tra la la la la ñexeleña huru xurololo drala brala brala, frala foroxololo lulu, ñexele ñexele ñexele ñaxala ñolo draxale xara xoroxoro foroxale marara tarawore kayitane buroxono faraxala tere xana soloxololo xolo ara buno jaxala baraxalara sénégal faraxalinana seda woni baraxara foroxo dorolo